jaaje sama gars yi internet sportif yi ñu ngi leen di jaajëfal te di leen wax ngeen di abonné ci chaîne bi gars yi am na solo tey amee vidéo yi gars yi Thomas Tuchel dàq nañ ko comme ni leen ko waxee woon dañuy ñëw na ci bilam nee na en tout cas nag Chelsea essence bi supporters yi moom lañ gën a gis entraîneur bi ñu gën a gis pour mu remplacer ko leneen tamit ci direction Chelsea bi am na ñenn ñoo xam ne ñi nga xalaat entraîneur boobu mais gars yi Thomas Tuchel daal moom essence bi moom jàpp leen ni moom 62 victoire la fa am 19 match nul 18 défaite moom coach su allemand bi loolu la def ci banc Chelsea bi jël si ñetti trophée mooy Ligue des champions bi nga xam ni bi mu koy jël yàggul dara ci banc Chelsea bi parce que dafa ñëw moom Thomas Tuchel am fa 5 mois daal di gagné Ligue des champions bi gannaaw bi nag mu daal di gagné super coupe UEFA bi gagné ma tamit coupe bi monde des clubs waaw moom Thomas Tuchel moom jël na ko moom coach allemand bi. moom ancien président bu Chelsea bi tamit moom mooy Abramovich moom Abramovich moom nag ba léegi mi ngi bàyyi xol bàyyi xel Chelsea mi ngi bàyyi xel actualité yi nga xam ni moom moo am foofu ci Chelsea Carragher nag moom moo wax nee na Abramovich mu ni Thomas Tuchel ginnaaw buñ ko dàqee def na liggéey bu rëy ci Chelsea moom te du yàgg dara tamit beneen club bu mag dina ko engagé mu ni parce que Tuchel moom top ménager la moom entraîneur la boo xam ne bu mag la bu xarañ la te effectivement wax na dëgg mu ni du yàgg dara dina amaat beneen club bu mag ndax coach bu mag la ta du yàgg dara mu am beneen club moom ancien président bu Chelsea moom ginnaaw loolu la wax ba ginnaaw ba Chelsea dàqee Thomas Tuchel fi mu toll nii nag ay médias yu bëri ànd nañ wax ko ni entraîneur bi nga xam ne actuellement moom moo nekk ca Brighton moom la Chelsea instant bi di xalaat a jël pour mu remplacer Thomas Tuchel moom nag Graham Potter instant bi dafay def ay jaloore ci Premier League bi parce que bi saison bi tàmbalee ba léegi moom mi ngi wone boppam moom coach bi ci quatrième place bi foofu la nekk moom Graham Potter ak équipe bi nga xam ne moom mooy Brighton treize la ne am ñoom ñoom ñoo raw Manchester United ñoo raw Chelsea bi nga xam ne tamit ñoom ñoo ko bëgg ñoo tamit Liverpool moom coach bi nga xam ne day def ay jaloore actuellement ci début de saison bi moom la supporter Chelsea bëgg mu ñëw foofu ca samp euh, ci Chelsea remplacer Thomas Tuchel am na nay dirigeant yoo xam ne ñu ngi commencé di mbëbët ay ay ay ay ay ay moom daal en tout cas coach la boo xam ne tamit jàpp na ni bu ñëwee Chelsea mën na yëkkati niveau bi deneen coach boo xam ne tamit dàq nañ ko muy coach Leipzig bi nga xam ne moom mooy bu Abdoulaye Diallo ginnaaw démb bin ñàkkee seen dëkk kat mais coupe du monde bi nga xam ni yëg si na Sénégal gars yi comme ni la ko doon waxee grand théâtre foofu lañ koy exposé tey à partir de treize heures ku bëgg a gis trophée coupe du monde bi gars yi boo demee grand théâtre nee nañ mën nga koo gis waaw foofu lañ koy wane te nee na d'après information yi nga xam ne dégg nañ ko nee nañ ku ko bëgg a gis faaw nga jënd butéel coca cola loolu la gars yi wax waaw ci lan lay mooy nekk sa daal ci lan lay bàyyi nga daal di mën a dugg xool coupe du monde bi